للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحيم الرحمن الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak ci téere yàlla toll ba tey ci suratul baqara di tàmbalee tey insha allah ci kàttanu yàlla ay 114 ay ñaari aaya yu sunu kanam borom bi tabaraka wa di ci feeñal di ci leeral lenn ci ay jaam yoo xam ne kenn daqu leen a tooñ ay jaam yoo xam ne tooñ dëgg ci ñoom la tàmbalee ci ñoom la yem lu ko waral mooy dañu fekk barab boo xam ne dañ ko jagleel yàlla tabaraka wa taala ñu ne barab bii day néegu yàlla la jaam yooyu ñëw ne néegu yàlla bi day yàlla bëgg kenn ko fi defee moo tax yàlla mu ne ñii kenn dàqu leen a te xam ngeen ni barab yooyu ñuy tabax wala ñu koy defar di ko jagleel buur bi tabaraka wa taala lenn dong moo war a nekk jubluwaay bi mooy pour jaamu jaamu boobu nga xam ne mooy illa gi tax yàlla amoon ñi ci àdduna yàlla indi nu fi képp ku tere loolu ñu def ko nag dëgg dëgg yow kenn dàqulaatoo jaamu yàlla googu nga xam ne moo tax yàlla bind jaam ñi indi leen ci kaw suuf képp ku ne kenn du jaamu yàlla yow yàq nga dund gi ndax dund gi jubluwaayam mooy jaamu kon ku ne kenn du jaamu yàlla yow yàq nga dund gi ci jamono jooju ba tey moo xam ñooñu di ko def dañoo bokk ci waa Quraysh wala ñu bokk ci fu ñu mën a nekk léeg sax ci jamono yonent am nañu ko doon def ci masjidul haram baare jàkk ji ne yonent bi dugg ci jàkk ji du fa dem comme ni ko buuru rom ruum defee woon daal di dem détruire masjidu aqsa muy Jérusalem wala nu ko buxtu nasar defee woon ba tey wala yeneen doomi aadama yi nekk ci kaw suuf fekk néegu yàlla di ko war a dundal nekk jaamu yàlla nga ne loolu kenn du ko fi def beneen bi borom bi tabaraka wa taala mu ñuy leeralal ci aaya bu mujj bi muy aaya 115 di tont yahud yi ñoom ñi nga xam ne ba ñu gisee yàlla tabaraka wa taala soppi yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jële ko foofu place jigéen ñi la kaa leen ci kanam masjidul aqsa daal koy jubal ci kaaba gi utal ko noddu wuutale ko am ñoom ñu commencé di wax yàlla xamal leen ne maa moom penku maa soow maa moom jaam ñi maa moom nguur gi lu ma neex laa ci def yàlla xamal leen ne jaam ñi ay jaamam lañ fu ñu jublu penku sow càmmoñ ndeyjoor yàlla tabaraka fay fekk yàlla xamal leen man yàlla day maa peek lépp lu mu mën a doon ci kaw suuf man yàlla maa ko peek te lu mu mën a doon ci kaw suuf ci man la jublu man yàlla lu mu mën a doon su jubluwul ci man du baax yàlla xamal leen ne man maa jubal yonent bi sallallahu alayhi wa ci kaaba gi moom yonent bi nekkul ne moo ko jubal boppam waaye man yàlla man maa ko jubal ixwatal iman mbokk yi ñaari aaya yi neexee buur yàlla tabaraka wa taala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 أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب fa aynama tuwallu fa thamma wajhu llah inna allaha waasiun alim yaqulu jalla wa ala buur bi nee na wa man azlamu wa man anakan azlamu ku dàqa tooñ nga ni kenn dàquta tooñ mimman ka nga xam ne mën a dafa tere masaajidallahi néegi yàlla yi an yuskara fi hasmuhu ñu wax fa turam wa man azlamu istifham al inkaar yi yàlla dafa leen laaj laaj laaju ku leen weddi ne wa man ana kan azlamu moo dàqatooñ tontu bi mooy kenn dàqatatooñ kan mim man ci waa ji nga xam ne mana tere na masajidallaahi néegi yàlla yi ay yuzkara fiha ju daal di fay tudd daal di fay jàng ismuhu turu yàlla bi waa ji ne jàkk ji kenn du fi def li taxoon ñu tëral jàkk ji wala barab bi ñu doon ne jaamukaay yàlla la waa ji mu ne kenn du fi jaamu yàlla yàlla mu ne ko kenn tax koo tooñ wa zulmu wadu shay fi xayri mahillihi tooñ mooy def mbir fuñ ko warul woon def loolu mooy tooñ soo déggee ñu ne diw dafa tooñ yàlla mooy dafa fekk lu ñuy defal yàlla au mu def ko fa mu def fa leneen tooñ mooy def ci barab luñ fa warul woon def loolu mooy tooñ wadu shay fi xayri mahallihi def mbir ci beneen barab budul barabam mutlaqan moo tax yàlla mu ne wa man azlamu mimman manaa ci waa ji nga xam ne tere na masajida jàkk yi masajida allahi jàkk yàlla jàkk moom boo amee tur rek yàlla bokkatu ci jàkk yàlla moo ko moom kenn moomu ko Samba amul jàkk Demba amul jàkk Moodu amul jàkk Paate amul jàkk wa anna al masajida lillah jàkk yàlla moo ko moom te jàkk jooju yàlla ne maa ko noonu yàlla ne maa ko moom mu ne fala tad'u ma allahi ahad bu kenn woo kenn ku dul man kenn jaamu jàkk kenn woo fa di fa tudd kenn waru faa dugg di fa màggal keneen ku dul yàlla lan mooy jàkk baat bii muy baatu masjid mu ngi jóge ci baatu sujjuut mooy fu ñuy sujjuutee fu ñuy sujjuutee sajada fu ñuy sujjuutee lu ñu fay def mooy dañ fay jaamoo yàlla moo tax ñu dee ko al fu ñuy sujjóotee di fa jaamoo yàlla jàkka nag ci lislaam biñ ci njëkk a tabax ci jaamu yàlla bi ci yonent bi njëkk a tabax pour jaamu yàlla dafa wuute jàkk ji njëkk a tabax ci kaw suuf mooy màkk malaaka yi ñoo ko tabaxoon après aadama ñëw yëkkati fondement bi ba jamono ju nekk ñu koy tabax muy yàpp ñu koy tabax ba mu egsi ci suñu jamono bi nu nekk foofu mu nekk malaaka yi ñoo ko fi tabaxoon ba fii nu toll jàkk ji ñu njëkk a tabax ci lislaam mooy masjidu Quba foofu la jaar julli juma julli fa doog continuer Médine jàkka ji yonent bi tabax nag moom ci loxoom mooy Médine mooy jumaam ji ngeen di gis tey muy Madinatul Munawwar jàkka nag dafa am jubluwaay tabax jàkk koy def dafa am lu la war a animé am lu la war a pousser pour def jàkka moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ubbee madinaam bi madinatu munawwar ba mu ne cëpp jóge màkk ñëw Medine li mu njëkk a def moom yonent mooy tabax jàkk balaa muy tabax këram ñun bu ñu demee fenn ci benn cité wala benn koñ lan la ñuy njëkk a def ah ah suñuy kër la ñuy njëkk a tabax di yalwaanal jàkk ci wala yeneen bi moom bi mu ne cëpp Médine dafa tabax jumaa ji ba pare doog a tabax fu muy fanaan moom ndax bi mu dañ koo héberger Abul Ayyub al Ansaari moo ko héberger biir Médine ñuy tabax jàkk ci moo tax yàlla mu ne ko la masjidun sa ala taqwa min awwali yawmin ko an taquma fii jàkk ji ñu tabax dara taxawul ñu tabax ko lu dul ragal yàlla la masjidun usisa ala taqwa même jàkk bu ñu koy tabax na ragal yàlla tax mais jàkk farfarloo comme jàkk Sénégal yi nga xam ne deux mètres yu nekk jàkk jàkk bee du fees ñu ñëw tabax beneen am benn njëriñ da ngay dugg benn koñ ñetti buntu kër yu nekk nga gis jàkk ñee la moo tax ñu tabax jàkk ji dañoo dem fee rek am lu ñu fa bëggoon def ñu ne leen du ko fi def ñu daal di génn tabax jàkk waa ji moom dañ ko doon jiital fii ñu gëj koo jiital rek bu dem def saalam jàkk saal de génn ci ñaari bunt ay opaleeram teg gis naa ko de te fii ñu toog am na ñu ko gis xanaa dañoo noppi rek waaw walla jàkk joo xam ne zéro mètre fa ngay jullee ñu gëj laa jiital rek nga ñëw def sa saal jàkk loolu tawul jàkk jóg jàkk dafa jóg pour boole nit ñi jóg jàkk jógul pour tàqale nit ñi moo tax ñun comprendre ñu mission wu jàkk jàkk la masjidun usisa ala taqwa jàkk lu tax ñu koy tabax mu ne taqwa lu tax ñuy woor taqwa lu tax ñu jaamu yàlla taqwa ragal yàlla moo war a tax ñu tabax jàkk jàkk ji ñu tabax te tabaxuñ ko ragal yàlla kenn amul droit jullee waaye mbokk yi amul jàkk ci àdduna bu liggéeyal lislaam bu tolloog jàkk yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam benn jàkk musul def mission bu toll ni jàkk yonent bi jàkk jooju jàkk dootu ko dab ñaareel bi lu tax ñuy tabax jàkk mooy pour dundal ko pour dundal jàkk umaarul masajid hum awliyaullah ñiy dundal jàkk ñooy xaritu yàlla yi wa ahibaahu min xalqi yi ay soppeem ci mbindeefam yi ñi dundal jàkk jàkk la lañ koy dundalee yàlla mu ne innama yaamuru masajid allahi man amana billahi wal yawmi al axir wa wa aata zakata wa lam yaxsha illa allah fa asa ulaika an yakunu min al muslihin xam ngeen ne ñooy dundal jàkk seen xàmmekaay bu njëkk bu ñu leen di xàmmee mooy man bi billah dañoo gëm yàlla kon kii dundal jàkk li la war a yóbbu ci jàkk mooy imaan gëm yàlla gëm àllaaxira taxawal julli doog a ñëw waa qaama salaat waata zakat joxe azak bokk na ci mandarga yi ñooñu di dundal jàkka walam yaxsha illa allah waru ñoo ragal ku dul yàlla yàlla mu ne ñoom ñooy ñi bokk ci ñi texe jàkk na lañ koy dundalee mooy tabax ko lal ko di fa julli di fa tudd yàlla di fa ñaan di fa jàng alquran loolu la ñuy dundalee jàng mais xam ngeen ne lii dafa jeex dafa jeex ci senegal jàkk yëpp allahu akbar asalaamu aleykum kerek booba yéexee sax dinaa fi la ñu tëj la ci biir duma fàttee mukk sunu benn papa génn na àdduna yal na ko yàlla yërëm góor gi Mohamed Thiam dafa dugg ci jàkk ji timis julli ñu sëlmal mu reculer di naafila ñu tëj ko ci biir jàkk ji mu toog fa bëggee ñu ñëw tëjji ko fekk mu toog ci digg jàkk ji di def ay askaaram mu ne bilaal bi loolu nga tëj ma ko mu ne fi da ngay dof lu di jéem a guddal sa sa julli saa fi guddatee julli ma tëj la ci jàkk jëm doxi sama yoon xam nga loolu du benn diine jàkkan moo ko moom ba ngay tëj jàkk dañ ko war a dundal jàkk lan lañ koy dundalee ginnaaw bañ ko defaree ba pare mooy julli zikr ñaan jàng alquran noonu la ñuy dundalee jàkk ñetteel mooy yàlla subhanahu wa jaamam yi mu tagg ne ñoom ñooy ay góor ñu jàkk rek moo leen yitteel yàlla dafa am ñu mu cité ci alxuraan bu ne ñii ñooy góor suñ leen limee ku ci gisul sa bopp rek xamal yow doo góor da ngay sol tubéy mais doo góor takk tubéy ak góor du benn yàlla mu ne wa fii buyutin azina allahu an turfa wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi walasal rijalun la tulhihim tijara wala bay'un an zikrillah wa iqami lsalaa wa itaai zaka yaxaafuuna yowman tataqallabu fihi alqulub wal absar fa haulaai rijalun warada zikruhum bi sifati almadhi wa ka anna xayruhum bi rijaal yàlla mu ne ñii ñooy góor moo tax yàlla tagg leen mi ngi mel ne ñi dul ñii duñu ay góor yàlla mu ne ci sama néeg yi laa joxe ndigal an turfa dañuy yëkkati turu yàlla wa yuskar fi hasmuhu ñu fay tudd turu yàlla tabaraka wa taala di ko fa sàbbaal ci subaak ngoon ay góor yoo xam ne du leen yitteel dara dara commerce du leen baare alalu àdduna du leen baare ay intere ci tudd turu yàlla taxawal julli joxe azaka lu tax ñu koy def mais dañoo ragal yowmal qiyaam bis bi nga xam ne xol yëpp dañuy tourné bu xiiku ak bët yi jublu ci yàlla tabaraka wa taala yàlla nag ne ñii ñooy ay góor mu mel ni bi muy joxoñ ne ñii ñooy góor dafa ne ku dul ñii doo góor rijalun yaamuruuna buyuta allahi subhanahu wa taala ay góor ñoo xam ne ñoom ñooy dundal néegu yàlla bi di ko toppatoo ci setam ci xeeñal ko ci lal ko ci setal ko rijalun yuxaafisuuna ala salawaati alxams jamaa fi lmasajid ay góor ñoo xam ne dañuy respecté julli yi ca jàkka jullit day dem jàkk yàlla wax na ci alquran wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid na ngeen jubal seen xar kanam yi ci jàkka yi yàlla wax na xuzu zinatakum inda kulli masjid bu ngeen dem jàkk sax da ngeen war a dem da ngeen war a toilette fi mu léegi ku doon dem pale suñ téléphoné woon léegi kenn ci ñun ne ko président woote na seen seen kër nee na nga ñëw léegi ndogu si foofu kenn ci ñun bu ñu ko waxoon fii nag suy dem foofu nu muy demee yàlla rek moo tax ma laaj leen da ngay dellu léegi kër boo demee booy jënd sax tam nga jëndaale eau de javel sotti ko ci ndox mi ñu ne lii la nga dama bëgg a set soo paree boo moytuwul ba nga soloo ba pare boo amuloon parfum di nga ñaani mbaa nga lebi xee ñu doog a dem foo jëm ci benn mbindeef kon ki jëm ci yàlla nag xuzu zinatakum inda kulli masjid na ngeen dóor leer bu ngeen di dem jàkk loolu la yàlla wax ngeen rafet rijalun yahrisuuna ala tilqaa'i al ilmi shar'i an naafi fi buyutillah góor ñoo xam ne dañuy yàkkamti dem ca jàkke ja ba jëli dars gis nga jàkk dafa bokk ci mission ginnaaw julli yeeg tudd yàlla ak jàng jàkk dañ fay jànge saxaaba yi fan lañ doon jànge ci ban école ci jàkk lañ doon jànge yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam ci jàkk la doon jàngale ci biir jàkk mais gis nga jàkk tey kenn du ci jàng da ngay gis ñu tabax benn jàkk ci côté jàkk bi ñu defa benn mbaar néegu ñax benn kirinting sëriñ daara bi toog foofu di jàngale buy taw ñëpp dem ñibbi ñu ngi tëj jàkk ji jàkk ji lu njëriñam mission jàkk ñun yonent bi lépp ci jàkk la ko doon defee ci jàkk la doon jàngalee ci jàkk la doon attee ci jàkk lañ doon entraîné jihaad ci jàkk ci jàkk lañ doon takkee sëy ci jàkk lañ doon attee lépp ci jàkka ji lañ ko doon def leen dong lañ du loon def ci jàkka mooy ku ñu war a def déeli yàlla yi sa kaw yu génn jàkka ji bu ñu waree dagg lox kenn ko dagg ci jàkka waree rey nit kenn du ko rey ci jàkka ji ndax jàkk place yu yërmande la rijalun yuhimmuuna hadihi al buyut ay góor ñoo xam ne ñoom ñooy aar néegi yàlla yi lu tax an tuxlaq ba kenn du ko tëj aw tuhdam kenn du ko màbb walla ñu ko fay jëlee wala ñuy yàq aw tudayya qaddasatuha wala ñuy yàq màggaayu place bi dañuy aar jàkk ji ba kenn du yàq màggaayu jàkk ji tey dangay gis jàkka yi ci Sénégal jàkka joo xam ne dañ ko tabax desal ci benn espace def ko ay cantine loué ko ay commerçant ak ay animateur bu ngeen ko gisul ngeen wax ma gisu leen ko ñaata jàkk ci biir réew mi yoo xam ne boo fa duggee boo fay dugg day mel ne ci marché nga jaar ba ba ngay yegg ci biir jàkk bi ndax ay place yu njaay moo leen wër grande mosquée ah jërëjëf ah am gis nga beneen yow tamit jërëjëf ah gis nga beneen ay tamit gis nga ah, kon alhamdulilah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soril leen ñaar seeni seeni jàkk yi ay dox nañ leen soril jàkk yi place commerce yi nañ ko soril jàkk yi lu réer sax kenn du ko yéene ci jàkk yaa ngi ne fi kurus gu réer am na ku ay xaram réer ñetti xar la ñaari weex benn gu ci jàkk yonent bi nee na ku dégg ñuy yéene lu leer ci jàkk na nga ne yàlla bu mu feeñ ah ku réer ku dégg ñuy yëg lu réer ci jàkk waxal yàlla bu mu feeñ waxul nga wax ko sa xel de ne nga wax ci kaw ba waa ji ko yéene dégg su la nee lu tax nga ne ko jàkka pour jaamu yàlla du pour yëgle ñun nag léegi lépp jàkka yi dañ koy yëgle jàkk dañ ko war a aar jàkk day gis sénégalais bu ñuy def mariage ñuy def sëy takk sëy ñu dañ génn ci biti dal yi lu tax ba tax ñuy génn ci biti parce que nit ñi yar wuñ parce que xam na ne buñ fi toogee deux secondes rek nga dégg ku naan waa mais booy nga gis Aïda <laughs> non non bii fa nekkoon walla ci biir jàkk nga gis paa bu commencé wax foo aye tey <laughs> àjjana la ay àjjana ci biir jàkk moo tax nga dégg gaa yi comprendre génnal ci biti fi kenn du fi wax waxu àdduna gis nga ndeysaan moo tax paa yi di dawal jàkk yi di génn ci bitti mais lépp ci biir jàkk bi lañ ko war a xam ne néegu yàlla la nekk mbokk yi pour ñu xam ne ñun ba léegi xamaguñu valeur u jàkk da gis ku dugg néegu sëriñam saalam daal mbax ne bi teg teg ci suuf daal di nguruf nguruf xam ngeen nguruf ne koroj xool ci suuf dootoo sax siggi sëñ bi toog ci kaw nga toog ci suuf ne ni sëgg sa bopp fii ku dugg ci néegu jàkk néegu yàlla nooy def da teg sa mbax ne wengal ko nii taalal say tànk ku la romb nga xulli ko gën léegi yow néegu nit nga gën a fonk ak néegu yàlla ci kaw suuf jàkka yi ñoo fi gën a tedd ñooy barab yi gën a sell ci kaw suuf mooy néegu yàlla yi fal masajid ayyuha al ahbab buyutullahi azza wa jalla fi l وهو سبحانه الذي أذن أن ترفع mbokk yi néegi yàlla yi jàkka yi ñooy néegi yàlla yi mooy place yi gën a sell yi gën a màgg ci kaw suuf moo tax yàlla joxe fa ndigal kon ñu fay yëkkati ay turam wa hiya anqa buqaa'il ard mooy place yi gën a set ci kaw suuf mooy néegi yàlla wa athar masahaati dunia place yi gën a laab terrain yi gën a set mooy jàkka yi ñeenteel xaqul umma bi masajidiha li mazharun li ruqya wal falaahi dafa yell tey ci xeet bi ci jullit yi ñu toppatoo jàkk yi lu tax ndax ci jàkka yi la ñuy yëkkatikoo ci jàkka yi lañuy ñuy texee doo gis jaamu yàlla bu yëkkatiku ci àdduna am daraja ci lislaam loolu da nga dégg ñu ne ku bëgg jàkkale doo gis doomu aadama bu set bu laab buñ naan kii ku jege yàlla la lu dul di nga dégg ñu ne ku bëgg jàkka la université yu sell yi ci àdduna mooy jàkk yi mooy defar jaami yàlla yi juróomeel nanu mooy tandiku xuturatu taxwili alqubur ila almasajid walmasajid ila alqubur la ilaha illa allah xuturatu danger taxwili alqubur ila almasajid jël suñuy bàmmeel def koy jàkk jël jàkk yi def ko ay bàmmeel dañ mooy tandiku loolu jàkka kenn du ci suul nit jàkka kenn du ci suul nit xuturatu taxwil alqubur ila almasajid walmasajid ila alqubur yonent bi nee na fu ñu suul nit bu kenn julli benn waay dina ne ah yonent bi ci jàkka lañ ko suul yonent bi suulu ñu ko ci jàkka yonent bi mu génnee àdduna yonte bi mu génnee àdduna ñu ngi ko suuloon néegu Aïcha néegu Aïcha dafa sësoon ci jàkk ji wala yonent bi daan nekk bu ñu noddee mu génn ñëw julli si ci biir jàkk ji jamono moo soppeeku ñu war a yaatal jàkk ji dañuy sulli yonent bi ah pour yaatal jàkk bi waaw loolu moo indi yonent bi fi mu tëdd laal ci jàkk ji jàkk jee ko fekki mais moom fekkiwul jàkk ji mën naa fekki ku dee mais ku dee du fekki jàkk su nit deewee fële këram dañ ko war yóbbu ci armeel ya suuli ko lu tax ñuy tàqale nit mi dama la ñuy tàqale jullit yi armeelu gor yi armeeli jaam yi armeeli catholique yi am na benn dëkk bu ñu jëndoon xuruj foofu géwél yi buñ deewee ci ay guy lañ leen dugal kenn du leen suul dañ leen dugal ci guy guy gi dafa am ngandum pax dañuy jël rek da ko fa rongoñ dem ñibbi billaay la Sénégal laa de benn waaye moo ko dindi bu dem Europe am xaalis papaam dee gars yi di préparé di ko bëgg dugal ci guy bi mu ne bu ko kenn suur ba mu ñëw ñu ñëw mu ne kenn du ko dugal ci guy paa yi ne kenn du ko suur ci armée ñu daal di ñëw ba ci suufu guy bi ñu gas soow koy suur léegi ku dee ñooñu ñu doon seen mbokk yi daan dugal ci guy yi ñu am fit ñoom tamit léegi ku dee kenn doon dugal ci guy gi ci guy gi la dugal ci ba léegi guy gaa ngi foofu bëgguma am turu dëkk bi nag benn ar benn ay jullit ñu leen di séparé gor yi fii lañ leen di suul jaam yi fii lañ leen di suul jaam yi duñu ay jullit ah jaam yi duñu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam fu suul nit lañ fa julli tey daanaka waxuma sax ñu suul nit ci jàkk mais di nga gis ku dee ñu suul ko sa biir kër la ak julli suul la sa biir kër su ko defee ne xam nga ban musiba moo lay dal xoolal lii dem armée li par jour di yóbbu ay nit ñu dee saa ñu demee di ñaanal nit ñi yow kenn dootu la ñaanal parce que tàqale nañ laa julli yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy tere ñu jël jàkka def ko bàmmeel wala ñu jël ay armeel def fa jàkk ay armeel kenn ba may place yoo xam ne ci lislaam kenn fu ñuy rey rey ay gëléem kenn du fa julli duus kenn du fa julli fu ñuy tuur mbalit kenn du fa julli ay armeel kenn du fa julli wala loolu nekk ci risaala waaw léegi nag nit ñi moom benn kilifa day dee ñu di ko ci digg jumaa ji surgu foofu nit ñi ñëw di julli ñi nekk ci kanam armeel bi nekk ci digg bi am ñu nekk ci ginnaaw di jublu direct ci bàmmeel ñooñu bu ñu ne allahu akbar kàbbaral néew bi bu ñu rukkoo rukkoo ci néew bi bu ñu sujjóotee sujjóot ci néew bi bu ñu sëlmalee jàpp ci grillage yi ku ney jooy di ko ñaan bokkaale la yonent bi nee na qaatala allahu lyahud wa nasara limaza ittaxazu qubura anbiyaihim masajid qaatalallahu alyahud yal na yàlla alak yahuud mu ne ittaxazu qubura anbiyaihim masajid dañoo jàpp seeni jàkk yi seeni armeeli yonent daf ko ay jàkk wa zaada muslim hadis bu njëkk bi muttafaqun alayhi la ñaareelu hadis bi mu ngi ci muslim yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam boobu da cee boole nasaraan yi ci hadisu Aïcha dafa ne kaanu iza maata fihim rajulu salih banu ala qabrihi masjidan ulaika charru xalqillahi limaza faalu zalik hadis boobu mooy hadisu Aïcha nee na wa kaanu nekkoon nañ iza maata fihim bu kenn ci ñoom faatoo arrajulu saalih nit ku baax ci ñoom bu faatoo banaw ala qabrihi masjid ñu dem tabax ci bàmmeelam jàkk ant bi nee na ulaayika ñooñu di def loolu charru xalqillah ñoo gën a yées ci li yàlla bind sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci ñun koy nettali rek ku ko weddi nga dem ci téere hadis xool na hadis bi wér na wala wérul beneen bi mooy daawatu gayrul muslimina fil masjid lil maslaha mën na noo woo ñeneen ñi dul ay jullit ci sunu jàkk yi comme chrétiens yi ak yahudi mën nañ leen recevoir xam ngeen booyee boobu tamit dafa lëndëm tey bu fi benn chrétien ñëwoon dugg gaa yi jël ay yat ne ko caqaj yonent bi sallallahu alayhi wa moo la gën a baax recevoir na délégation chrétien ci biir jàkk ji te jàkk jooju moo gën ci jàkk yi beneen bi alquran moo ne وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله suratu tawba aya 6 yàlla nee na benn mushrik ganeetee yow yonent bi bokkaalekat gane la waar ba mu dégg waxu yàlla yonent la yàlla di wax wa in ahadun min al mushrikina stajaaraka fa ajirhu hatta yasmaa kalaam allah su la kenn ci bokkaalekat yi seet seetee na ko accueillir teeru ko tatagal ko dalal ko waaye nga waar ko ba mu dégg waxu yàlla tabaraka wa taala mbokk yi bokk na ba tey ci rolu jàkk jàkka fa la ñuy formé góori yàlla yi fan la ñuy formé Aboubacar ci jàkk fan la ñu Umar ci jàkk fan lañ formé usmaan jàkk fan lañ formé Ali ci jàkk yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko waroon ñëpp ci jàkk la leen formé amul feneen amul beneen saal bu leen dugal di jàngal kënf ak taekwondo ak karaté ci jàkk ji la leen formé ci jàkk ji la leen jàngale ci jàkk ji la leen yaree mbokk yi jàkk du centre commercial jàkk du place bu ñuy jaayee jàkk du place bu ñuy defee grand place waxuma la dara sax ñu fay dem jàkk du centre commercial du place bu ñuy dem place bu ñuy jaamoo yàlla tabaraka wa allahu akbar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iza man yabiu ay yabtaau fi l masjid fa qulu laa arbaha allahu tijaratak laa <laughs> ilaha illa allah rawahu nisaa'i wa tirmisi wa xassanahu yonte bi leen bu ngeen gisee kuy jaay ci jàkk ne leen ko hee mu ne ah ñu ne ko sa njaay mi yàlla bu ci yàlla def barki kon ñii luwee jàkk ji nag ñaar mooy liñ doon wax sànq ci yëgle man sami'a rajulan yanshidu daalatan fi lmasjid faqul laa radda allahu alayka fa inna almasajid lam tubna bi haza rawahu muslim yonent bi nee ku dégg ñuy yëgle lu réer ci jàkk nanga wax yow mi ko dégg yàlla bu mu feeñ su la waa ji ne lu tax nga ni ko jàkk kenn tabaxu ko tomb bi gën a rëy nag mbokk yi te ñu ci jeexale yëfu jàkk pour ñu xam dañ doon firi baat bii rek masajid allah mooy al masjid mahdu intilaqatul kubra jàkk mooy point de départ bi xam ngeen li tax la gis conférence yi amatul njëriñ mooy defuñu ko ci jàkk jàkk néegu yàlla la leer moo fay génn jàkk sakina moo fay am dal moo fay am fi mu nekk nii bu nekkoon fi ci biti def benn baas oto bu romb ñu xool ko xale bu jigéen bu ñu gis mu romb ñu gees xool ko waa ji ñu gis muy dox di bonde génn dënn bi ñu gees xool ko ku sëqat ñëpp gees mais gis ne comme jàkk ñépp dañ naan teg yërmande yàlla di wàcc moo tax jàkk mooy place bi am barke pour jullit ñi war a delluwaat su jullit yi delluwaatoon tey ci jàkka yi rek jàkka yi def seen liggéey rek léegi lislaam tasaaroo ci àdduna bi mais maal asaf tey jàkka yi ñoo deful seen liggéey lu tax mooy ñi jiite jàkka yi ñoo xamul lan mooy mission wu jàkk jàkk dafa am mission jàkk mission bi gën a rëy mooy fa la ñuy déparé tasaare ji lislaam ci àddina bi saxaaba yi bu leen yonent bi daan yónni ci jàkka ji la ñuy dajaloo mu wax leen li mu leen di wax ñu départ bu ñëwee kenn ci ñoom du dem sa kër ci jàkka ji la ñuy dajawaat ak yonent bi jox ko information ba pare doog a sangu ji noppalu ci al masjid muntalaqu daawa daawa woote lislaam mi ngi déparé ci jàkk moo tax yonent bi bi mu ne tëll Médine li mu njëkk a yittewoo mooy tabax jàkk léegi nag yàlla mu ne kenn dàquta tooñ wa man azlamu kenn dàquta tooñ mimman waa ji nga xam ne manaa dafa tere masajid allahi jàkka yàlla yi an yuzkara fiha ñu fay tudd ismuhu turam nga ñëw ne jàkk kenn dufi fi julli waaw ah, kenn du fi conférence non jàkk ji xoolal defuñu ko pour jànga su ngeen sëlmalee bu yóbboo ngeen ub seen téere ci biti saa nga dëgg ko wax loolu koñ boo dem am na fa benn waaye bu nekk pànk jàkka ji pànk bi mais yii nooy tënd kaafar mu ngi ñëw mu ñëw gaaw leen gaaw leen dem su nee tël nit ñi dañuy tiit même bu ñuy julli dañuy tiit ba bu ñuy sëlmal am na paa yoo xam ne ñu ngi ci jàkka suñu duggee ci nit ñi dañuy tiit ba ba ñuy génn di ñibbi amoon nañ benn jàkka yoo xam ne bu ma fay dem damay tiit bu ñuy julli damay tiit ba ba ñuy sëlmal loolu du jàkk yow amoo fenn fooy nekk pànk lu dul jàkk néegu yàlla nga ñëw di fa wane sa doole di fa wane sa tàngaay ak sa xadar ci néegu yàlla waneewoo ko sa kër waneewoo ko ci mbedd mi dëkk baa ngi ni yàqu nga ñëw ci néegu yàlla yenn saa yi nga gis ñoo xam ne bala ñuy nganda ngandalu ñu ne bismillah nañ defar sàppe yi nga gis ku nekk di jéem a génn mbagg waaw ak di jéem a jaayu ne maa maa fi gën a wowle waaw saaqu bi saaq da ngeen koy dégg du xanaa sax lu ñu gàtt xam-xam dinañ gis tere yi ba màkka waa màkka ñuy naafi la da ngay bi mu ne saw saw wala loolu du ngeen ko dégg wala taxtalifu booy bi ñu ne saaq bi saaq minka alal minka tànk ak tànk mbagg ak mbagg yëpp dafa war a laalante tànk ak tànk mbagg ak mbagg ah? bi na jub atimmu saful awal yonente doon wax safu kama yasuful la malaaka yi di sàppee mu ne yutimmuuna saful awal bi sàppe da ko yitteloon musul julli loolu defar yi ba pare am na benn waay bu amoon biir sax biir bi da daan nii génn sàppe bi yonente bi day jël socc araagam daal koy teg ci biir bi ba ne ko eh, dugal sa biir bi yow dugal sa biir ndax sàppe ni mu ko yitteeloon wala ñun tey bu gaa yi di julli sàppe bi day mel ne jaan nii lay def nii tànk yi nii la def tànk yi au tànk yi def nii da ngeen baaraam yi ñu war def nii yëpp jub ñoo xam ne ñu daal seen tànk def nii bii jëm ndeyjoor bii jëm sow loolu nag soo ko defee kenn waxul cati baaraam bi nañ laalante waxuñu cati baaraamu tànk yi nañ laalante lii mooy laalante lii taraasu bii mooy kole lii taraasu la wax lii muy sës mooy kole lii di tàmbalee fii ci catu baaraam bi ci kaw du fii lii moo war a kole yeel yi kole mbag yi sësante ñu dugal ko ba mu jub kan lañ taxaw ci kanamam yàlla xool leen militaire yi bi ñu taxaw ci kanam Abdoulaye Wade ak gendarme yi policier yi bu ñu taxaw ci kanamu góor gi ni ñu def seen sàppe ak sàppe jàkka yi ban moo gën a jub ah ñoom seen sàppe ñoom kan lañ taxaw ci kanamam mbindeef ñun kan lañ taxaw ci kanamam allah ndeysaan ñee seen mbax na yi sax day tolloo mbax na yi wala nga gis ñoom ñëpp ñu toroxlu ñun da ngay kuraan ni génn dënn ñun yàlla jubal yàlla mu ne waajoo gi yemul ci tere sama tur walla sama diini ji wala ñu jaamu ma ci jàkk ji yemu ci waaye wa waa ji dafa dox fii xaraabiha ci ràppal jàkk ji dina ngeen wax dafa dox ci jàkk ji nañ ko tëj saa fii xaraabiha amila fii hadmiha wa taxribiha xaqiqatan dafa dox moom waa ji jëf ay jëf yoo xam ne jàkka ji de dañuy indi quatre pala léegi dër ko toj ko waaw non jàkka ji fi ñu ko tabax waruñu fi mu nekk moom day déranger nit ñi Sénégal moo am ay ay ruq yoo xam ne ci biir réew soo ko bëggee tabax jàkka dañ naan la non lay déranger nit ñi quoi am na ci biir yoo xam ne kenn du ko tabax jàkka fan résidence am na jàkka léegi ah léegi bi Sénégal nekkee Sénégal bi léegi léegi lañ commencé lu tax lu tax bu njëkk bi kenn dafa woon am na cité yu nekk fii benn terrain bu gaa yi doon ñaan bu ko def jàkk benn waay taxaw ne kenn bu ko def jàkk barki démb am na ñaar ñuy liggéey sabodola mais fi ñu génnee or ñoo xam ne diine da leen a yittee loolu ñuy góorgóorlu di góorgóorlu di góorgóorlu di góorgóorlu ba benn place bu ñu ñëw fekk foofu ci biir piscine xam nga foofu dëkk bi yëpp dañ leen fay ñu fay liggéey dañ leen faa yóbbu nga xam duñ mën a doxi yi dayee fa nekk ñu ne ñooñu ne ñun dañoo bëgg a julli ñu ne leen place bi mën ngeen ko bale gars yi daal di ñëw indi seeni affaire ñu indi weñ comme ay comme ay maçon fa ñëppam fa miniser yaan fa ñëpp fa tase gars yi ñëw xëy rek dóor benn affaire bu rafet def ko mosquée nga dégg ñi nga xam ne ñoom jaamu yàlla na non non su ngeen defee léegi li chrétiens yi ñëw ne dañuy tabax église bi ngeen di xatal fii tubaab bi ci boppam ne leen non non dama la waxoon ngeen julli mais bu leen tabax jàkk daay ne ko daaneel ko dindi ko mu ngi noonu ñun suñu yoon nekku ci tabax nañ ko ba pare dama nga dindi ko mu ne leen en tout cas da ko fi dindi ba ñu xamee ne gars yi dañoo nar a woo kilifa diine yi pour ñu wax ñu gis wax ji ne ko yow danaa bëgg ñu tëj usine bi gis nga sport dox dox loolu bañ laa jàkk waa Sénégal ñoo lay fekk si mu ne en tout cas affaire bi daf may déranger quoi kooku sax yéeféer la mun nañ ko comprendre mais fii laa wax ci biir Dakar am na bi ñoo xam ne xam ngeen am na benn jamono boo xamante ne dañu ne woon jàkka yi dañuy éliminer nodd yi lu tax ndax nee nañ suñuy nodd dakaar tabax yi immeuble yi dañuy aw ñëpp a yeew dañuy déranger nit ñi. am ñoo xam ne koñ bu ñu dëkk dañuy xool dañuy ñëw xool ba fii amul jàkk ñu ne déedéet ñu ne waa fii baax na soo amee jàkk ñu ne non lu nekk ni am na ci ruq yoo xam ne ci biir Sénégal amul jàkk fii rek ah côté am na côté yoo xam ne amul jàkk tax loolu. ñoo xam ne wasaa fi xaraabiha dañuy dox pour jàkka bu mu am jàkka ji na fi jógee nañ ko tëj fii amoo cinq xaw ma amoo quatre am na fa benn terrain public buñ defoon jàkk benn waaye ñoo ne dañuy dindi jàkk bi moom dafa bëgg def benn place publique fii la doon jàngale Canada boobu am na benn maire bu nekkoon fii maire bi gaañu na xam ngeen gars fan lañ dem Thierno Mountakha boobu mu ngi dund mu woolu ko nekk yow say maam doon tabax jàkk yow nga ñëw naan place publique place publique dinañ ko tëkkaleeg jàkk mu ne gars yi dem leen ngeen yëkkati jàkk yi jàkk ji baraag la woon mais tey boo demee fekk tabax nañ ko jullit ñi li ñu war a yittewoo fu ñu dem mooy jàkk ba pare wala dara gis nga ñi nga xam ne dañoo xam ñooy ñu jàkk bu ko ma sax nekk ay góor da ngay ñu koy takk mu jël canam daal di koy joxe ne ndax tabaxal leen ma ci jàkk lu jàkk jaamam bi ne man yonent bi bi ba léegi ñaata nit ñooy julli ci jàkk jooju hmm? xoolal fii bi ñu ko tabaxee du léegi ñaata nit ñoo fiy julli par jour te ñi ku fa julli rek yow nga am ci moom tiyaaba te lii mooy place bu kenn lootul doon la ci kaw suuf mooy jàkk yàlla may moo tax ngay gis Sénégal ay nit yeneen yu jóge ci yeneen jullit ñoo jóge feneen ñëw indi seen xaalis tabax jàkk ci ak bëri ay jàkk yoo xam ne ci Sénégal ñeneen ñoo ko tabax mais waa koñ bi moom bu ñu leen bàyyi moom yéen a ngi fàttaliku jumaa 68 hmm? ñi ñi ñi dëkk Dakar ñi dëkk Guédiawaye sapeur yi jumaa 68 jumaa ji kañ la pare ça même léegi trois ans benn waaye ñëw rek fekk jumaa ji 68 ndeysaan jumaa ji mënuñu fexe ba mu baax 68 Abdou Aziz Dabakh moo tegoon peer bi bis boobu maa ngi woon foofu 68 maa ngi bëgg a yàgg de ndeysaan ah 68 fekkee naa ko de fekke na la Abdou Aziz Dabakh moo tegoon peer bi jumaa ji tëx a pare fu nañu dugg fi te bis boobu la ñu joxe woon rek tabaxoon na jumaa ji waaye jumaa ji tëx a pare ñu dem ci benn borom moo ko ñu ne ko jumaa ji daa tëx mu ne bu ngeen ko deful yàlla rey leen indi ñeneen ñu defar ko effectivement gis nga kenn benn nit moo ñëw rek daal koy tabax benn nit loolu mooy diine nit ñi dañoo war a yittewoo tiyaaba te ñu xam ne seen kër yi ñuy tabax après dañ koy doon kër googu tabax lu benn waaye day ñëw un jour daal ne non tabax bi xam nga lu muy luwi ji bulldozer ñu rasé ko tibb xeer yi yóbbu ko ci gravaye moom mu ñëw def fi leneen mais jàkk kenn ñemewu ko toj de waaw gars yi mus na ñoo dem ci Abdou Diouf ay ay ay ay élèves yu jóge woon université yoo xam dañoo ate ñu ne ko Abdou Diouf daan ko audience ba Abdou Diouf may ñu ne ko mosquée université bi daf ñu lakkal dañuy bëgg nga jële ko mu ne leen jóg leen jóg leen audience bi dakk na man ma toj néegu yàlla man waaw jóg leen ngeen dem fekkee da ngeen ma bëgg ma torox ñooñu la yàlla dimbali ba kenn nit ñoom tuub di dund sunna ñëw di nettali mbokk yi ni moom bokkoon na ci audience loolu la yàlla naan wasaa fi xarabiha ay nit di dox ngir jàkka ji na fi jóge fi hadmiha wala taxribiha nañu ràppal jàkka ji comme niñ defoon moske bi nekkoon ñaari tali ñëw lakk téere alxuraan yi lakk moket yi dajjiti tribal yi daaneel mbaar mi ab ko def même bu fekkee ne place boobu néegu ñax la man bana lillahi baytan bana allahu lahu baytan fil janna même bu fekkee néegu ñax nga defal yàlla léeg-léeg ngay tukki nga nekk ci oto nga seen benn waay bu defar mbaar ndeysaan nit ñi di ci julli gis ngeen waa jooju moo moo ki tabax juma cinquante étages ayam tiyaaba ndax moom loolu la kii ki def néegu ñax de tudde ko jàkk wala baraak wala seng wala mbaar moo ki tabax étage cinquante immeuble jàkk ñoo yem tiyaaba man bana lillahi baytan bana allahu lahu baytan fil janna képp ku tabaxal yàlla benn néeg yonent bi nee na yàlla dina tabaxal benn néeg ci aljanna wa saa fi xarabiha aw yamnau salaatu fiha wala muy tere ñu julli fi di tere nit ñiy julli ci jàkk ci nan lañuy ñuy tere nit ñi ñuy julli ci jàkk mooy tere nit ñi def li dal seen xel gaaw leen eh, eh, gaaw leen waay dañuy tëj julli ngeen ba pare bàyyi leen nit ñi nag gaaw leen li ñuy yàkkamti du ma fàtte mukk benn jàkk bu ñu doon jullee tàkkusaan bilaal bi di kereel nit ñi gaaw leen ñu tëj jàkk ci foofu ñuy wax ñu doon football ci mbedd mi dóor bal bi mu jaar ci fenêtre bi ñëw dugg ci biir jàkk ci moom moo jël bor bi dinañ ko joxaat waxul ci loolu de muy kereel ñi naa fi ne na leen gaaw leen ñu tëj jàkk ma ne ko am nga loo waroon wax nag lii kay bal bu ñu dóor ci néegu yàlla am nga waroon xamuñu néegu yàlla fii jàkka joo dem lu dul lu di nga fa fekk benn terrain football ci bunt jàkk ci bal bi chaque jour ñu koy dóor ci jumaa ji mën naa leen limal ci ay jàkk yoo xam ne bis bu nekk ñu dóor leen bal pale ndax mos nañ faa dóor bal pale palais mës nañu fa dóor bal mës ngeen gis ay booy di petit camp buntu palais wuy leen ma chaque jour ngeen gis match dimanche matin ci juma bu ngeen demee école 13 am na fa bu ngeen demee fii ci terrain bi sapeur yi am na fa ñaar yooyu doy na chaque jour ngeen gis ñuy dóor jàkk bal loolu jàmm la waaye chaque jour ngeen gis ñu jël ay waasin tóoru jën caaxoñ yi di ko këpp ci buntu jumaa ji ci miiru jumaa ji léeg sax gis ay Ablaye Ndiaye yoo ci miiru jumaa ji la saw ñaata yoon ngeen fi gis miiru jumaa joo may saw ñaata yoon ñaata kon ñun xamuñu jumaa wallaay xamuñu jàkk fonk ñu jàkk chaque jour dama koy wax fii naan jox leen jàkk ji xorma bi jàkk dañ ko war a jox xorma wax nañ sànq bi ñuy commencé jàkk mooy place bi gën a sell ci kaw suuf ci àddina bi terrain yi gën a set ci kaw suuf war a gën a sell mooy jàkk dañ ko fonk kon jàkk luñ koy rappelé mooy tere fa jaamu yàlla fexe ba terroriser nit ñi nit ñi duñu bu ñu ñëw ci jàkk ji ndànk ku nekk day ñëw di moytu di moytu fooy taxaw am na jàkk yoo xamante ne am na jàkk yoo xamante ne place dafa am ñu fay taxaw dafa am ñu fay toog jàkk ji ci diw mooy toog fii te saa nga toog am ko la fekk ne la jógal ci maa fi toog jàkk kenn amu fa place ku dul imaam te xam ngeen imaam lu ko fa may place mooy dafa julli si bu julli soo rek place bi ñu jël wasaa fi xaraabiha ñoo xam ne dañuy dox ngir ràppal jàkka ji yamnau salaatu fiiha wa sarfi nnaasi an taabudi fiiha wala ñuy terroriser nit ñi bu fa kenn ñëw mos naa fekke jàkk yoo xam ne dañ fa daan tere xale yu julli si loolu man dama ko fekk dama ko dund xale yi xam nga du ñuy def dañuy bàyyi ba julli jot ba ñu liqaam xale yi daal di dugg xale yooyu ma leen di wax nii <laughs> am na benn xale bu ngeen ci xam tey bu ngi tudd Pape Cheikh Sylla moo nekk Walf xale yooyu dañ leen daan yóbbu jàkk ak ñeneen ñi mel ni ñoom buñ daan jul dañ leen di yóbbu bàyyi na xam nga xale yi ñuy def dañu leen di yóbbul sijaada ci buntu jàkka ji teg mais ñoom bu ñu lixaamee ñu dugg bu ñu sëlmalee ñu daw benn bis <laughs> am ci benn paa boo xam ne xam nga nu mu def dafa bàyyi bañ liqaam ba ilimaan ne allahu akbar mu daal di jaar ci néegu imaam nii la jaar nii daal di wiiri fekk xale yu dugg mu ndombaleen ñoom ñëpp keroog ci biir jumaa ji bàyyi leen ba ñu rukkoo mu ñëw fit ñu ngi julli de dégg fit fit fit xale yu ñëpp daw mu takk ndombaam ñëw allahu akbar waxuma leen ay waxuma film de waxuma ay gént de loo ne man dama ko fekke jàkk yooyu julli nañ fa ñun pare sëlmal imaam bi euh, mbokk yooyu jege nañ jigéen ñi de mbokk yi de ngeen jege si ngeen bàyyi place boobu ak jigéen ñi ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen jàkk jooju julli nañ fa timis sëlmal imaam bi mu ne bu fi kenn waxati amin bu kenn waxati amiin koy wax na nga ko wax ndànk am benn waaye bu yëkkati loo xam ne ko asalaamaaleykum wa mu ne ko imaam amiin sunna la xam ngeen wax jooju lu mu jur pistolet tàkk ci jumaa ji dër dër dër xeex commencé ci jumaa ji pistolet ci jumaa ji ndax amiin te yonent bi moo ne isa amana al imaamu fa aminu beneen riwaaya mu ne isa qaala wala daalin faqul amin ñuy wax jumaa ji jumaa yi gën ci jumaa yi ci àddina bi ñu fay wax amin ba pigeon yi tax ci jumaa ji dañuy naaw bii ñun suñu jumaa yi ñu naan boobu gën a amin <laughs> ndeysaan am na jumaa joo xam ne gars yi dañoo dégg ñooñu sax ñoo tooñ ndax dañoo dégg ñu ne jumaa ji dañuy tere ku fi wax amin ñoom ñu daan def seen délégation bàyyi ba timis jot ñu def délégation dem julli ji <laughs> xam nga ñooñ moom ñoom ñoom histoire ñu bàyyi ba imam bi ne wala dallin amin xam nga ñooñu dañuy tooñ ñoom it ñu pare imam bi ne bàyyi leen tooñ bàyyi leen tooñ bàyyi leen tooñ ndeysaan moom la julli di toll ndeysaan ñii naan bu ko bi kenn def ñi naan dañ koy def ku nekk xam nga ñi kenn julliwu ci kenn julliwu ci xam nga yenn saa yi ngay julli ba pare fekk ci biir julli gi yaa ngi xuloo yaa ngi xuloo julli boo xam ne nga ne asalaamaaleykum rek kur fañ ñu commencé bi ngay julli loo doon xalaat ah sa xel demul ci yàlla loolu moo tax ñu war a def attention mbokk yi yàlla day tere néegam yi jàkkaam yi ñu koy jalgati di xotti xorma bi wasaa waa jooju day dox fii xaraabiha ci lu ràppal jàkka ji ràppal mooy yére bu bees boo sol ba yére bi ràpp ba nga def ko mars morso fa beere yàlla day tere ku def loolu jàkk loolu nag nekkul ne da ngaa ñëw di tilimal jàkk noo da ngaa def ay mbir yoo xam ne jàkk ji kenn dootu fa dem balaa ngeen doon xam ne am na jàkk yoo xam ne kenn julliwu ci ñun dem nañ dem nañ ay dëkk yoo xam ne bañ fa demee julli jot ñu ne ana jàkk ji wallahi alazim biñ ne ana jàkk ji fii dañoo mel ne ñu laaj fan la pale nekk nga dégg wax dëkk nan lan nekk di wax benn jigéen mu ne eh, jàkk ji toog na ay weer kenn ubbiwu ko ba ñu ubbee jàkk ji moket yi basan yi kenn julliwu ci ndax tilim am na jàkk joo xam ne bi fa mbokk yi demee dañoo fekk benn ginaar nen ci biir jàkke ji ginaar bi nen di ko bóof ci biir jàkke ji la bóof ndeysaan nen yi da ngeen jàkk ju ginaar bóof ay nen jàkk lan lay jëriñ dañ ko war a dundal kenn du dox pour ràppal jàkk yàlla nee na ulaayika ñooñu di ràppal jàkka yi ma kaana lahum an yadxuluha illa xaifin waruñu dugg ci jàkk lu dul ñu ngi toroxlu jàkk ci dugg da ngay toroxlu kenn du dugg ci jàkk mel ni kuy dugg ci stade jàkk dafa am aadaab am aadaabu du xoolul masjid teg dugg jàkk jàkk boo ci dugg même sa ñaari tànk yi dafa war a am bu njëkk a dugg sooy génn dafa am bu war a njëkk a génn kenn warul dugg ci jàkk di yëkkati dënn sooy dugg jàkk ak sooy dugg seen kër warul nekk benn soo doxee ba egsi ci jàkk ji danga war a toroxlu xam fii ngay dugg néegu yàlla la moo tax yàlla mu ne ulaayika ñooñu ma kaana lahum yellul ci ñoom an yadxuluha ñuy dugg ci jàkk ji illaa lu dul ñoom xaayifiina nañu ngi toroxlu boo déparé sa kër dañ leen bul daw bul waaxu doxal ndànk bi ngay génn ci buntu kër gi rek wax nañ la nga wax benn ñaan booy dox di dem ci jàkk ji am nga ñaan booy wax soo ñëwee ci buntu jàkk ji nga ni bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahumma aftax li abwaaba rahmatik ban tànk mooy dugg tànk droite soo duggee foo jëm premier sàpp fan ndeyjooru imaam xam nga fii bu ñu duggee ku nekk dangay ñëw rek taxaw fu la neex wala dana du ñun loolu mooy sunu aada lenn ci ñun dangay dugg fu la neex nga taxaw ñii fële ñii fële ñii fële ñii fële ku ñëw xam nga julli moo la yitteel si ñoo nga fekk benn nit toog na fii ñëwal toog ci wetam ñaari nit yoo xam ne ay yéeféer lañu Philippines lañ dëkk xam ngeen lan moo leen tuubal benn essencerie yi moo amoon problème ci immeuble yi tiim Kaaba bi te xam nga zone boobu dañuy interdit non musulman di fa dugg mais yi bi ñoom ñaar rek ñoo ci mun dara seen société yebal leen pour ñu ñëw defar immeuble bi essencerie bi biñ ñëwee julli jot ñu dégg nodd bi biñ déggee nodd bi ñoom ñaar ñu leen yéeg ci immeuble bi tiim gis bi ñu taxaw di xool nit ñi dugg di ran ñu taxaw di xool nit ñi dugg di ran ba li xaam jot ñu li xaam julli sëlmal fi tas julli jotaat ñu bàyyiwaat li ñuy liggéey yéegaat taxaw di xool wàcc jot ñu wàcc jot ñu julli jot ñu yéegaat ñoom ñaar kenn ki daan ne keneen ki xam nga man lii balaa may dem dama ciy dugg man lii bala may ñibbi dama ciy dugg de keneen ki ne ko man maa la ko njëkkoon bëgg a wax mu ne ko lu la ci dugal mu ne affaire bi dafa am organisation kenn du wax kenn taxawal fii nga ñëw rek nga ñëw taxaw mu ne xol nu mu rooyee xool nu mu mu ne amul ay organisateur di ay ay ay taxaw leen fii e ñëwal nii e puusal ne mu ne amul nodd bi rek ñëpp ñëw ron ñu daal di julli mu ne di dafa organisé man dama ci dugg xoolal gis nga nekkee islam dafa dafa service islam dafa set islam dafa organisé islam dafa rafet mais xoolal ñun chaque jour nga dégg ñu eh, ñëw leen ci kanam waay e kaay nii yow e puusal ne yow e xoolal fee islam amul police est-ce que amul police l'islam amul kaso état l'islam laa de kaso amul fa yoon laa sujuuna fil islam lan moo tax tey kaso am mooy dafa am ñu të ñu jël leen yóbbu leen ci kaso yi denc leen wala déglu ngeen information tey une ñi sàcc yi gën a garaaw ci sàcc Sénégal dakaar dañ leen jàpp tey nga xam ne ay millionnaire lañ dégg ngeen ko ñaata lañ ah gis ngeen walla rek di sàcc ba nekk ay millionnaire ñu lay jàpp ci weeru koor te ñooñu xam naa ne boo moytul joxe nañ tàndarma koor bu yàgg yaay naan leen jaajëf fekk ay sàcc lañ ay dealers yi bon lañ jàkk soo ci dugg noonu ngay duggee tànk ndeyjoor ngay jiital ah dem premier sàpp ba premier sàpp fees ñu doog a dem deuxième sàpp kenn warul dugg ci jàkk di sos beneen sàpp fekk premier sàpp fees bi waru ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ngeen xamoon li nekk première sàppe kon dina leen dina leen doon jaral ngeen jël ay jaas yi première sàppe première sàppe ñu ëpp tiyaaba ci jàkk ci sàppe bi gën a baax sàppe yi mooy ban sàppe sàppe góor yi mooy première sàppe sàppe bi gën a bon mooy ban mooy bi nekk ci ginnaaw bi nekk tuuti jigéen ñi kon ulaayika ñooñu di tere ku dundal jàkk yàlla ngi leen di xamal ne leen maa kaana lahum yellul ci ñoom an yadxuluha ñuy dugg ci jàkk ji illa xaaifiin lu dul ñu ngi toroxlu lu dul ñu ngi am ragal yàlla jàkk boo ci dugg da ngay toroxlu da ngay xam ne yaa ngi dugg néegu yàlla loo doon jaay wàcce boo doon yëkkati mbag bi wàcce boo doon téen bopp bi sëggal ko doxeel ndànk ci jàkk bi nga dugg dem sa place julli ñaar raaka toog soo duggee ci jàkk def li ma wax julli ñaar raaka toog yàlla da yónnee ñaari malaaka malaaka bi toog ndeyjoor malaaka bi toog càmmoñ kii naan yàlla baal ko kii naan yàlla jéggal ko te jullee ko sooy génn aussi tànk ndeyjoor mooy njëkk a génn tànk càmmoñ mooy njëkk génn tànk ndeyjoor mooy des ci biir looy wax bismillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik mu génn loolu mooy tegginu jàkk jàkk dafa am ay teggin aadaab aadaabu duxulul masjid ci aaya bi am na boroom xam-xam yi koy firee képp ku ñëw bàyyi ba dee mosoo ñëw jàkk ñu yenu la indi la jàkk ñu ne alquran moo lay wax abaay baat yi ma kaana lahum an yadxuluha illa fii yow de bi ngay dugg ci jàkk ji toroxlu woo lu tax toroxlu woo set ponkal ñoo dem dugal la ci kees indi la ci jàkk ji am na ay xale yu góor yu dëkk ci koñ yi du ñu dem jàkk lu dul ñu poñe leen indi leen ci jàkk ji wala jàkk ji am takk am na ci ñun ñoo xam ne bala ñuy dem jàkk koñ bi jàkk ji am takk lan moo leen indi jàkk beñe bisaab guro tàngal mànt waaye nañ dem jàkk jawaay dañuy takk ndey tey lan moo la yóbbu beñe lan moo la yóbbu jinjeer lu la yóbbu bisaab lu la yóbbu guro lu la yóbbu tàngal gis ngeen suñu paree takk nga toogaat ba déwén ba ñuy takk nga ñëwaat leneen nga gis benn xale bu góor booy nañ dem jàkk ja paa yi fa la ñuy ndogoo mais gars yi ndog yu neex la leen dégg ñu dem lekk ndogu paa yëpp dem barki démb fii dafa am ay booy yoo xam ne dañoo bàyyi ba ñu dugg ci jàkka yi ñu buub suñu mburu yëpp ko daw ca suba sa ñëw gars yi ne leen du fii du fii aca xàmme nañu leen aca fi ah, fii laa wax fii booy bàyyi ba ñu dugg fii li xam ñu ñu summi seen yére yi ëmb ci mburu mi këpp boolu mburu mi daw traversé stade bay daw di dem wala loolu rek gaa yi pare ku nekk jàpp sa gémmiñ di jooy ana mburu ba xale yi yóbbu nañ ko wala ku fay dem ragal yàlla moo la far yëpp lan moo tax ma daal dem dugal leen daal li semaine bi bis bu nekk am kuñ fi jël daal semaine bi loolu jaaduwul naka la jullit di ñëw ci jàkk fekk ay nit sumi seen daal nga koy jël ah? ba pare yow yaa ngi woor wala yaa ngi ci koor ngay ngay ngay lor say mbokki jullit dem ci jàkk di sàcc teggi moket yi yóbbu rajo yi dajji ventilateur yi ah ba pare dem cabinet fi ilimaan di taxaw di jaay dëgër bopp ak ficteur loog dinañ xam ne maa maa leen gën a bon loolu jullit du ko def jullit nii fonkee néegam néegu yàlla la ko war a fonkee yàlla mu ne ñooñu nga xam ne dañuy dugg ci jàkk te duñu toroxlu lahum am na fi dunya ci àdduna xisyun gàcce dinaa leen gàcceel ci àdduna waaye walahum ñeel na leen fil axirati ci àlaxira azabun mbugal azimun bu rëy gis ngeen kon jàkk ku ci dugg da ngay toroxlu jàkk ku ci dugg da ngay xam ne yaa ngi dugg néegu yàlla jàkk ku ci dugg da ngay dugg da ngay xam ne yaa ngi dugg sa néegu boroom allahu tabaraka wa taala lan moo war a ko dugal mooy nga toroxlu mani ñun dañuy dugg ci ay néeg néegu nit di toroxlu néegu président de la république ku fa dugg dangay ngay toroxlu teg ngay def ne nii sooy xool sax ndànk ngay xool sa néegu kilifa diine bi nga gëm boo duggee mu toog nga toog mu jàkkaar la yoon da ngay simbi sa mbaane teg su daal di ne nii sëgg néegu yàlla nag ngay dugg teen di aju lu nga xulli ko mu ne nga xool wala nga ni xaaral ma dem créer ci gars yi jàkka ja xaaral ma dem naa leen wan a jànguñu ñoom ñun jànguñu moo tax ñuy fàttalante rek ñun jàngale wuñ de li ñuy def ni du jàngale de man jàngale ma de damay fàttali fàttali nag ñëpp mën nañ ko ku amul xam-xam moo koy def xam-xam ku koy ku am mooy kiy jàngale ñun dañuy fàttalante moo tax bu kenn ñëw fi naan damay dem dajji ji waa jàkka ja parce que jànguñu xaama dem dajji ji leen wala kooku li yéeneen waaw wala bu leen dem foofu jàngi parce que ñooñu ña fa nekk amuñu xam-xam keroog fii bi ñu commencé xiyaam yi ñu jël xale yi nga xam ne ñu ngi leen di jàngal ci daara ji ñuy jiite ñu ne mbokk yi dañoo organiser xiyaam bi dafa am ñu ñu jël nañ jiite ci jiite bi dañuy def ñeenti raak soo defee ñeenti raak ñu nga arrière ñu dugal keneen mu def ñeenti raak bu paree ñu def ñu jox kenn mu def safa witre ñu jox kenn ne ko yow su ilimaan yi juumee yow yaa leen di gàgganti ñi leen di jàngal kay yaakaar naa ne ñëpp mën nañu gàgganti ñu ñuy jàngal mais buñ ci waxee kenn yow gàggantil la ñëpp noppi est-ce que ñëpp waruñoo noppi léegi da ngay kenn nekk fële ci bunt bi ilimaan nekkul wallaahu ahad rek allahu samad boo naan waaye dama leen seen ilimaan yi xamul dara maa leen doon gàgganti ah, ñun ñu jox kenn kaamil kay na ko xoolal del gàgganti ak yeneen ilimaan yi jiite te duñ xool kaamil bi kay ñu war nañoo mën a gàgganti wala waruñoo mën a gàgganti mbokk yi mais dañ koy organiser lu nekk dañ koy organiser mais dafa am ñoo xam ne yàlla moo leen nattu fu dem bëgg a wone ne ñoom ñoo jàng ñoom ñoo xam ñoom ñoo mën loolu di yëfu jullit nit koy jàng da jàng ngir yàlla ak yow li ngay dund nga dund lu leer jàngal ngir yàlla mais naa jàng pour dàjj amul benn importance li ñu dajj doy na dañ ko samp nag léegi li ñu dajj doy na ba ba léegi ñu ngi dajj samp nag léegi jot na nag ndax guddee ngi bëgg a ñëw te buñ sampul néegi duñu am fuñ fanaan nañ samp nag ah daj yi doy na yàlla ba muy wax Moussa Moussa mu yónni Moussa ci Firawna kan moo gën a kon Firawna ci àdduna am na ah ah amul ko gën a bon Firawna de yàlla di yónni Moussa ne Moussa boo demee nga ni Firawna wa wax ko wax ju wax ko wax ju nooy wax nu mu bonee yàlla mu ne wax leen ko wax ju yow nga ñëw ci ay jullit di leen kereel waaw ni ngeen di jullee du noonu ni ngeen di jàngee du noonu ni ngeen di ñaane du nan la yoo rek yow rek sa ñaan moo baax ah sa julli moo baax dañ leen def attention ñu bañ a dugal rëy ak ngistal ci suñu jaamu yàlla ngistal day yàq jaamu yàlla te gis nga iblis démb loolu moo mën a doon dal moo tax ma ni oustaz na bayaan dama dugg ci jumaa ji rek seen benn waay bu ñëwoon fan yi di xas fii rek sama xel mi ne tey dinaa bayaan dajj waa ji ba ma dóoree sama ñaari rakk rek sama xel jàngal ma ne man maa doon jàngale tey tafsir naan fasfu fasfahu waafu ma ni kon warumaa def loolu loo moo tax ma def la nii démb ne la nii bayaanal parce que yàlla moo ma delloo si waat démb parce que seytaan du ñu bàyyi mais bi ma séenee waa ci kanam sàppe dama ne woon kii ba ba muy dee dootul ñëwati fii di ñu kereel waaye gis nga ba ma dooree ñaari ràkkee xam naa ne iblis bi ma duggoon dama dafa daw bi ma naan la nii bayaanal fekk ay ñëw na ci sama xel ne man maa toogoon fii démb di jàngale ay amagul sax 24 heures bu tooy xepp waafu wasfahum ma def la nii na la bayaanal loolu yëpp lu ko waral mooy nekk fitna ci nit ñi nekk fitna soo nekkee fitna ci nit ñi nag nit ñi dañ lay topp ba yàqule boo nekkee fitna ci nit ñi di la di leen di leen lakkal di leen lëjal da ngay dem ba nit ñi topp la ci loolu yàqule wax yàlla na yàlla musal mbokk yi place yi même imam bu juumee wala nga gis waa ji def lu dul noonu mais nan lañ ko war a rectifier bàyyi ko bañ pare waaw salaamaaleykum ba sànq gis naa nga def loo xamante ne est-ce que du biñ gisee góor gi juum doon jàpp juum ñëw rek sëlmu raxas tànk yi nopp yi masa bopp bi daal di sarax ndiku ah! ñoom ñaar ñu xoolante dañoo ñëw ci góor gi ne ko ñun ñaar dañoo werante kan moo dàq jàpp dañoo bëgg nga nekk arbitre suñ paree nga wax ñun ñaar ko dàq jàpp Assane jël satala gi daal di jàpp ba jàpp bi pare mu jox Ousseynou Ousseynou jàpp paa bi xool leen ba caag ne maa mënut yéen man ngeen di jàngal ma mënut man mii maa mënut yéen ñaar man ngeen di jàngal noonu la ñuy jàngale waaye ñëw rek yor sa yàq lay tey jàkk ji xam ne neexuñu baat maa neex baat loolu du diine nan lañ ci àlla musal yàlla nee na ñeel na yàlla al penk wal maghribu ak sow moom yàlla kenn moomul penk kenn moomul sow ku dul yàlla walillahi ñeel na yàlla al mashriqu wal maghrib mbokk yi penku ak sow benn buur moo ko moom muy allahu subhanahu wa taala keneen amu ci place yàlla moom penku yàlla moo moom sow bi mu moomee penku meewum sow lan la wax fa aynama tuwallu fa samma wajhullah fu ngeen mën a jublu foofu jëmmu yàllaan fa fa samma wajhullah hunaka allah taala is allahu aza wa jal muhitum bi xalqihi fa haysuma ittajaha al abdu sharqan aw garban shimalan aw januban wajada allahu taala foo mën a nekk ndax nit mën naa dem fu yàlla nekkul hmm? ndax nit mën naa nekk fu yàlla nekkul déedéet yàlla nee na maa yakunu min najwa salaasatun illa huwa rabiuhum ñaari nit buñ doxee di waxtaan yàlla nee na maa leen ñetteel kenn bu doxee man maa ko ñaareel ñaar bu ñu doxee ñetteel naa leen ñett bu ñu doxee ñeenteel naa leen ñeent juróomeel naa leen foo nekk yaa ngi ak yàlla moo tax mu ne fu ngeen mën a nekk man yàlla maa moom penk ba yéeféer yi waxee yonent bi jaaxal nañu bu teyee mu jublu masjidul aqsa ginnaaw suba mu jublu masjidul haram lii mooy lan yàlla mu ne walillahi almashriq walmaghrib maa moom penk moom sow kenn moomul penk kenn moomul sow yàlla moo ko moom waaw sow yàllaa leen moom waa penk yàlla moo leen moom subhanahu wa moom yàlla tabaraka wa taala foo dem foo nekk mi ngi yow wa huwa maakum ayna ma kuntum fu ngeen mën a nekk borom bi mu nga fa moo tax saa yoo wéetee bul ne wéet naa xamal ne am nga ku lay surveiller bul wéet mukk daal ne wéet naa wéet naa booy wéet nañ de acca boog indi affaire yi wéet nañ de gaawal boog balaa gaa yi ñëw wéet nañ waxal ndànk wéetoo wéetu leen ay na allah ana yàlla ana yàlla benn waaye bu noboon benn xale bu jigéen proposé xale bu jigéen bi boppam xale bi bañ xale bu jigéen bi am problème ñëw ci moom pour mu régler ko ko mu ne ko foog ñu sëy te mu jox ko rendez-vous jox ko waxtu waxtu wi jot rendez-vous bi jot waxtu wi jot ñu wéet ñoom ñaar mu ne ko tëjal bunt yi mu tëj bunt yi mu ne ko am na bu des mu tëj fenêtre bi wàcce rideau yi mu ne ko am na bu des benn bunt benn feneen na mu ne bunt bi jaar suñu digganteeg yàlla ba duñu gis tëj ko waa ji daal di sol turéem génn daw jàngeen ci xadis ñett ñi demoon ci xuntu ba ñi demoon ci xuntu ba jàngeen xadis bi de ñi guddee woon àll dugg ci benn xunt ne dañuy xaar bu bët set pour ñu génn dem benn ngelaw am waame ñëw daal di jël benn montagne daal di tëj bunt bi ñoom ñett ñu tëju ci biir ñu xam ne dañuy dee tey ndax kenn du leen sële ndax àll bi kenn nekk te xeer bi ñoom mënuñu ko puus dindi ko lu ñu wax ñu ne leen def tawassul ilal amalu saalih yi ñu defoon yoo xam ne yàlla rek a taxoon ñu def ko yàlla dimbali leen ku njëkk ki lan la wax man amoon naa sama ndey sama baay ñoom ñaar ñu ma loolu leen daaw ma lekk te lekkuñu daaw ma nante naanuñu daaw ma reer te reeruñu ñoom ñoo doon reer ba pare ma doog reer dañ daan waa ji dañ daan dem rat gëléem yi wala nag yi buñ ne rattee ba pare daal di jël soow mi xaaj daal di tegal góor gi mu lekk ba pare moom soxnaam waa ji doog yóbbu lekk moom njabootam benn bis mu guddee mu ñëw fekk papaam ak yaayam tëdd nelaw mu teg reer bi seen bunt dem tëdd moom doomam yi jooy njabootam di jooy ndax xiif mu ne leen du ngeen lekk ba sama papa sama yaay lekk ba pare ba njaboot yi nelaw ba fajar jot yaay mu papaam yeewu lekk ba pare ba desal mu doog indi leen mu ne yàlla bu fekkee lii yow dong yaa taxoon na koy def yow yàlla ubbil ñu xeer bi waa ji waxee loolu xeer bi daal di yëngatu daal di ubbeeku mu commencé ci seen ngelaw leen jant bi kon lu muy tekki mooy kooku li mu wax yàlla dëggal na ko yàlla nangu na ñaareelu personne bi mu ne man de dama noboon benn xale dara desul lu dul wéet naa moom ba war a yegg ci moom mu ne bul dajji li nga moomul ndaw laa musuma xam góor ngeen jigéen ku xamul góor day taxu mu ne ko bul dajji li nga moomul ngir nii nga bëgg laal tey loo moomu la moomoo ko lewu la waa ji daal bàyyi ndaw si dem yoon yàlla bu fekkee loolu yow yaa taxoon ma dem na bunt bi ubbeeku xeer bi daal di puusaat mu des ñetteelu personne ñetteelu personne bi mu ne man de dafa am lu mu liggéeyal ñu liggéeyal ma ba weer dee ma war leen a fay ñu dem ma fay ñëpp bam des kenn gisuma ko ma jël fayam bi ma ko waroon fay ma daal ci jënd ay jur ma def ko ci kër gi jur yooyu daal di jur àdduna yàgg jur yooyu jur ba fees dëkk bi waa ji benn bis ñëw ne waa ji xam nga ma mu ne déedéet mu ne mën nga liggéeyoon war maa fay fayoo ma mu ne fay bi laa jël mu ne ko àll bi yëpp yaa ko moom jur yi xar yeeg béy yeeg nag yeeg lépp yaa ko moom waa ko déedéet danga maa liggéey loolu dama xaalis bi laa jël si mu ne ko xaalis boobu laa jënde woon lii mu jur lii lépp waa ji daal di yóbbu lépp bàyyi sax mote lépp la yóbbu bàyyil sax waa ji benn mbote bu ndaw mu ne yàlla bu fekkente ne loolu ma bàyyi woon waa ji bu lépp yow yaa taxoon ma dem yàlla ne xeer bi xeer bi daal di bërëngu dem fële ñoom ñett ñu daal di génn sama question bi may laaj mooy bu fekkoon ne ñeent lañ te kenn ci ñun fii ci biir jumaa ji yaa leen ñeenteel looy wax déggu leen li ma wax ma ne ñee ñett lañ bu fekkoon ne ñeent lañ kenn ci ñun fi toog yaa leen ñeenteel yow looy wax ak lan ngay proposé yàlla ba xeer bi ubbeeku ndax ñeekat dañoo wax rek xeer bi ubbeeku kenn wax xeer ubbeeku kenn xeer ubbeeku bu fekkoon ne kenn ci ñun fi yaa leen ñeenteel looy wax pour xeer bi ubbeeku te yow yaa ci des nag yaa la war a rek xeer bi ubbeeku loolu ñu naan mooy dernière penalty yi boo dugalee ñu gañe boo ko ratee ñu alko lan la la gars yi di wax bu jour bi dem di tóori ci penalty bi lu ko gars yi wax de ndeysaan lu nekk ngay dégg ñu koy yóbbanti léegi nag bu fekkoon ne yaay ñeenteelu nit looy wax yàlla tabaraka wa taala pour mu dindi xeer bi loolu moo tax ñu war a góor góorgóorlu ci ay jëf yu baax pour bis bu ñëwee bis bu mel noonu bu ñëwee fekk am nga loo def tawassul ilallahi taala man yàlla man de wax dëgg yàlla bis def te loolu yaa taxoon ma def ay yàlla bu yow dong yaa taxoon nangam wala defal ma nangam loolu àdduna yéen a nekk yaag tolof-tolof yéen a ànd yaag ay problème yéen a dëkk kon war ngay def tawassul ila allah di def di jokk ci yàlla ci ay jëf ci ay ko ci ay sarax ci ay julli ci ay naafila yoo xamante ne yàlla rek mooy tax nga def ko kenn du tax nga def ko yàlla nee na maa moom penk walillahi almashriq walmaghrib maa moom penk moom saw kenn moomu ko penk bi yàllaa ko moom saw bi yàllaa ko moom fa aynama tuwallu fu ngeen fi mën a jublu fa samma foofu di ngeen ko fekk wajhullah jëmmu yàlla waaw waaw fu mu ne doon is alkainaatu kulluha bayna yadayhi mboolem mbindeef yeeg ndundat yi ñu ngi ci kanamu yàlla tabaraka wa taala wa kayfa la yakunu zalika waqad axbara an nafsihi an al arda qabattuhu yowma alqiyamati wassamawatu mutwiyatun bi yamini suñ ne ñëpp a ngi ci kanamu yàlla benn waaye dina ne loolu nu mu mun a nekk xanaa xamu leen ne yàlla tabaraka wa taala pour nga xam ne loolu mën naa nekk ci moom du ndaw nee na moom yàlla asamaan ak suuf dama koy nëb ëllëg yowmal qiyaam ci sama main droite kon kooku nu mu toll kon kooku bu dee jaam yaa ngi ci sama kanam penku beeg sow bi kenn munu fay rëcc kenn munu fay def lu ma xamul kenn munu fay laqatu ku ma gisul kon kooku du ndaw koo xam ne jaam yëpp la tiim li leen di wan ne dooleem nee na asamaan ak suuf dama koy lem téye ko yowmal qiyaam ci sama loxo ndeyjoor bi yaminihi allah kon yàlla nan la toll ah gars yi buñ gisee fi benn mbër bu simmeeku rek ne nii kii kii kuy bëreeg moom da ngay xaru wala ñëpp di wax sa yaay bu gisoon waa ji ngay bëree jël mu ne nii da nga toogal xaalis jarul lii ci àdduna ah ki ne yowmal qiyaam damay ngëb suuf ak asamaan ñoom ñaar laay boole tee ko ci sama loxo ndeyjoor joor kooku nu mu doole kooku ban doole la am kooku est kon war naa war na laa sant dara nga bañ koo def egg na ci doole day boole asamaan ak suuf ngëb ko ngëb nii téye ko asamaan suuf su rëcc mu ne ko ni téye ko kooku ban doole la am mbokk yi kooku nan la toll est-ce que kooku kon wax defal nga bañ def ah <laughs> allahu akbar yaakaar naa kooku bu la ne woon wooral sa dund yëpp bul lekk bul naan sax danga ko war a def ndax xam nga ne xejul ci yow allahu akbar subhanahu wa taala moom yàlla fa laysa hunaka jiha taxlu min ilmihi taala wa ihatatihi bi amul benn côté ci côté adduna bi boo xam ne wéet na ak xam-xamu yàlla tabaraka wa taala huwa maakum aynama kuntum bi ilmihi wa quwwatihi wa qudratihi fu ngeen nekk mu ngi fa ak yéen ci xam-xamam ci kàttanam ak ci doole kenn mun ko rëcc yàlla nee na li may def ku mu neexul li ma san koor gi ma leen sant su leen neexul bu leen dox ci sama suuf bu leen asamaan tiim dem leen beneen asamaan ak beneen suuf bu ma nekkul man yàlla ngeen jaam ko man lam yarda ala qadaa yi walam yasbir ala balaa li ma tëral ku mu neexul li may tegaate ku mu neexul génnal suuf si demal nga bu la bu la asamaan tiim foo jëm fan ngay def te asamaan du la tiim fooy dox te doo dox ci suuf boo duggee ci ndox mi sax suuf dina di ko fa fekk nuurul xanaa ci digg bi ngay taxaw de bul egg suuf de boobu duggee di nga gis suuf te boo yàggee ci diggante bi lee nga dee moom koy dugg wala boo nee sipp seen asamaan boo duggee ci suuf seen suuf kon nooy def nangul li yàlla wax nangul santaane yàlla gërëmal lim la teg nga nekk ab jullit yàlla mu ne inna allah lu waral loolu mooy inna allah naka yàlla waasiun alim waasiun dafa yaatu te foo dem fekk ko alim moo peeg lépp xam-xam munoo def lu mu xamul te ko am xam-xam yàlla moo la may xam-xam aaya yi ñu doon jàng mbokk bi nekk ñaari aaya dinañ ci jële juróomi mbir bu jëkk mooy azamu jarima man yataarrad lil masajid bi ay azan aw ifsaad crime bu rëy boo xam ne dara gënu koo rëy ci waajoo xam ne day terroriser ñi nekk ci jàkka yi bi ay azan aw ifsaad di lor ñi nekk ci jàkka yi wala mu leen di yàqal seen jaamu yàlla ñu ngi may nettali Kër Massar am na fa animateur boo xam ne gars yi suñuy julli rek mu yokk musique bi ba benn waaye dem mer ci loolu xeex ak moom ñu jàpp waa ji daal di koy tëj yaakaar naa loolu rumeur boobu déggoon ngeen ko wala leen ñenn ñi bopp loolu mu la naka ngay nekke jullit nga gis ay jullit di julli yenn saa yi day am fii ci suñu ñuy julli duñ dégg waxuma sax julli juróom mais jour vendredi ñëpp di julli moo tax am na liggéey yoo xam ne ku ci nekk dangay liggéey ba wow koŋ doo am dara du barkeel parce que yaa ngi déranger jullit yi yaa ngi yàq seen jaamu yàlla da nga ciy nekk ba wow koŋ jeex tàkk doo am tus lépp loo am boo paree bisaab bu xonq ak kel nga koy jëndi ji du barkeel jullit naka la julli di jotee nit ñi di julli yow nga yor say bant di ko tëgg nit ñi di julli doo bàyyi li ngay def boo nga dem julli ba pare nga delluwaat minimum mais déedéet ñun toll nañ foo xam ne tey la hawla wala quwwata illa billah am na dëkk yooyu dem da gis julli jot nga gis oto yëpp droit du gis dëkk bi kenn ñëpp a ngi julli mais fii da ngay gis waa ju oto sax ba tiim gars yi sax xam ngeen li nga da ngeen a soof ah da ngeen a yéen kese da ngeen a tali bi nga di baare ah wax wax yi ko neex tourné yaa ngi ci mbedd yi dem yoonam du julli de te bu julli jotee ñëpp dañoo war a bàyyi li war a def lu mu julli ci ñëpp ku mun doon bu julli teelee julli rek yonent bi nee na ñett kenn du ko tardeel ñett kenn du ko yéexe julli bu jotee julli néew bu faa ku dee suuli xale bu jigéen nga gis ku ko bëgg maye rek ñett yi kenn du ko tardeel kon li ñuy jëlee ci aaya bu njëkk mooy bàkkaar bi gën a ci kaw suuf mooy kuy bare jàkka yàlla ñu bañ fa def li yàlla bëgg ñaareel mooy wujubu ximaayatul masajid dañoo war a aar jàkka yi ñépp ñu nekk ci jàkk di fa jullee wala góor góor lu ba yàlla defal leen jàkk dañoo war a aar jàkk bi ximaayatul masajid min duxulil kaafiriin illa an yadxuluha bi izni lmuslimin wa hum azillaun sagiruun dañu war a aar jàkk yi waxuma sax balaa yéeféer yi mais même sàcc yi ñuy dugg ci jàkk yi di sàcc ñëw dajji buntu jàkk yi tekki haut-parleur yi teggi moket yi dégg naa benn waay boo xam ne dafa sàcc benn jàkk ba tukki dem Europe bi mu demee mu daal di yónnee paay xaalis ne leen maa sàccoon mokkati jàkk yeeg rajo bi jël leen ko ci loolu xool loolu nu mu grawee dem yónnee paay xaalis ne leen man la de maa ko sàccoon am fay naa leen ah, ah ba ñu a jël yow Sénégal fii di nga gis paay ñoo nee na xaalis duñ ko jël man ma gis jàkk joo xamante ne bi ñuy simb ci courant ci jàkk ji lañ branché courant bi di simb bu ñu paree jox paay 3000 ñu ne def de baax na jën ko def bis bu nekk dinañ ko def bis bu nekk macha allah jërëjëf waay. jàkka ji lañ branché simb bi jàkka ñoom seen jàkka ji ah waaw xoolal loolu mu gaawee di simb. branché courant bi ci jàkkee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay way Sénégal yàlla jubal wujubu himayatul masajid jàkka yi dañ leen jumaa yi dañ leen war a ak jàkka yi terrain yi football xoolal terrain yi ñuy football jumaa yi kenn waru football ah terrain jàkka yi ñuy tuur ndox tuur ndoxum salte tur waa si dooru jën ñenn ñi dafa saw def ko wanag loolu jaadu na ci jàkk pale ngi ne na kenn ci ñu na dem miir pale saw ko doon ndogu tey wala booy ndogu dig ngay ndogo wala di nga ndogoo nu la neexul wala heure bi dina passé nga doog a wax man ndogoo ko ma ba léegi <coughs> te néegu doomu adama rek nga dem def loolu kër doomu aadama parce que ma kër yàlla tabaraka wa taala ayyuhal ahbab aar jàkka yi ci yéeféer yi dugg ci lu dul mu neex jullit yi lu dul yéeféer yi bi ñu fiy dugg jullit yooyu leen dox jox ndigal te bu fekkee dañ fi dugg sax lan moo leen fi war a dugal asila torox ak saaxiru na nekk ñuy suufe comme yonent sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko defee woon recevoir ay ay groupe wala mu jàpp benn yéeféer yeew ko ci buntu jàkk ji gars yi di julli di ko romb di waaraate muy dégg di jàng alquran ba xolam tooy mu daal di tuub am na yonent buy mu jàpp yeew ci buntu jumaa ji ñetteel mooy sihatu salaatu naafila fi safar ila al qibla wa ila gayriha ci jullit muy julli mu war mu war dara war fas nekk ci avion nekk ci oto nekk ci mbaamam nekk ci fasam nekk ci gëléemam mu jublu xibla wala mu bañ a jublu xibla hmm? loolu dagan na julli naafila salaatu sixatu salaatu naafila alal markubi fi safar ci ci jamonoy tukki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko daan def ci gileemam da koy jublal penku ba mu jublu penku akbar daal koy bàyyi mu dem fu mu jublu baax na ne ci kaw di julli dagan na nit julli ci oto dagan na nit julli ci kaw mbaamam wala mu dugg ci avion wala mu julli ci bato buy voyage loolu yépp lu sax ñu lañ koy wax mooy julli kenn du ko tàrreel léeg nga wax nit mun na julli ci avion nit ku ne di la xoolaat da nga cee yëgu rek boo cee yëgee di xam ne nit mun na ci julli avion comme nii nga toogee rek soo ci toogee ni day mel dara xewul mun nga ci julli ab bal sax am na avion yoo xam ne dafa am saal yu def pour julli bu julli jotee nit ñi dañu dem julli ñëwaat toog kon ba yàlla tamit mayeenu sax nag ñu mën a naafila ci kaw rabu àll ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ko def mooy wujubu istiqbalil qibla inda al ajz illa inda al ajz fa yasqutu hadha al waajib julli moom saa yoo ko déggee mooy jublu penku rek képp ku julli jublu woo penku amoo julli lu dul télé am télé télé su waa ji télé jublu penku ni mu mënee lay jullee dafa feebar ci lal bi mu hôpitalisé wala lal bi mu tëdd këram lal bi jubluwul penku mënuñu turee lal bi pour mu jublu penku noonu lay jullee saa yu télé amee man ngaa julli saa jublu penku nuróowul nag ak nga wàcc ci dëkk jàpp jaari jël si jaada julli te laajte waa na xibla bi gan bi yewi bi soo wàccee cib dëkk xamoo dëkk bi fan mooy xibla bi nga jàpp ba pare danaa war a wax jullit yi nga fa fekk fan mooy seen xibla ñu ne la fii nga jublu waaye ñoo rek allah akbar jublu nii boo paree bu ñu la nee jublu ba penk ngay julli waat parce que yaa ko tey loolu nag wuute na am nga tële su nit tëlee mënul jublu penk feebar moo ko gàllankoor wala liggéey moo gàllankoor wala li mu war moo ko gàllankoor su boobaa jullee noonu mu jullee dinay dagan fa yasqutu haazal waajib xam ngeen jublu penk dafa war mais su tële ñëwee war war woowu dafay rot juróomeel mooy al ilmu bi ah, ihaatati llahi taala bil awalimi kulliha yàlla tabaraka wa taala dafa peeg mboolem monde awamil yàlla daf ko peeg ci xam-xamam asamaan suuf géej ngelaw li lépp mu mën a doon yàlla da ko peeg ci xam-xamam ci xam-xamu yàlla la mbir moomu di demee gis ngeen jant bi ngeen koy gis muy tourner di ñëw nii di indi tàngaayam ci xam-xamu yàlla la koy contrôler yàlla ci xam-xamam la koy contrôler suuf si ngeen gis ni a teg ñu toog kawam nii muy tourner di dem vitesse yu gaaw yëgu ko ñun ñëpp ñu toog te suuf si yàlla ci xam la koy contrôler ngelaw li ñuy nooy yàlla ci xam-xamam la koy contrôlé wa anna allaha qad axaata bi kulli shay'in ilman ku yaakaar ni lii ko defar amul xam-xam dangay nax sa bopp adduna bi ki ko xool xam ne ki ko defar borom xam-xam la wala ah ki defar avion muy naaw kan moo ko defar doomu aadama ki defar ki defar avion nag booku la ñu war a yéemu wala ah yow yaa defar avion ni nit ñi waaru yow mi defar avion bi ki la defar nag waru ñoo waaru ci ko balaa ñuy waaru ci avion bi nañ xool ki defar avion bi ki ko defar loolu moo jërë yéen moo tax yàlla bi mu nee Isa gars yi di waaru Isa dafa juddu amul bàyyi tt affaire bu garaaw nangam nangam yàlla mu ne da ngeen dof inna masala Isa inda allah ka Adam yéen kay aadama moo leen war a yéen ndax kii moom am na jigéen ju mu génne waaye aadama ban jigéen la ci ban jigéen la génne ban jigéen moo jur aadama kenn yàlla tibb ci suuf si ne ko kun fayakun yàlla bàyyi ko ba muy nelaw ci biir aljanna yàlla xar faaru góos bi génne xawaa loolu moo tax xawaa ñu tuddee ko xawaa lu tax ñu tuddee ko xawaa ndax dañ koo génne ci luy dund moo tax mu tudd xawaa xawaa mooy ku ñu génne ci luy dund mu nga kon borom bi tabaraka dafa peeg ci xam-xamam al awalimi kulliha mbooleem adduna bi qudratun wa ilman fala yaxfa alayhi min amri l awamili shay'an wala yajizu hu shay moom ci kattanam ak xam-xamam xoolal jant bi lan la wax wasamsu tajri li mustaqarin laha jant bi day daw de waaye yàlla nee na ci saxuwaayam ñaata ñaata vitesse lay daw lan moo koy dawal kan moo koy dawal énergie bi ñu jant bi di sotti bi ñu ñëwee ci kaw suuf ba léegi fan la koy jële kan moo koy jox Senelec fan la jëlee courant bi ñuy jox ci ay ci ay machine bi nit ñi demee ba ëpp Senelec doole Senelec mënatuñ jox courant moo tax coupure bi am ah waaw àddina bi lu tax ay nit yoo xam ne ëpp nañ doole jant bi ba yàlla mënatu leen jox énergie ñëw fi yaakaar naa ne chaque jour am ñuy ñëw am ñuy dee te terewul jant bi nii rek lay def ñëw au contraire sax yenn saa yi nga dégg ñu ne wuu tey moom daf tàng moom tey moom wuu tey affaire boobu tey moom tey moom ah. te tàngaay bi yàlla ci mbaaxam da koo limité de ba pare booleeg ñun ci àdduna bi loo xam ne day wàññi tàngaayu jant bi su yàlla dindi woon couche de zone bi mu def ci asamaan si yàlla bi mu bindee jant bi ba pare bind asamaan si dafa def ci diggante asamaan beeg jant bi ay perméable ay rideau yoo xam ne ñooy wàññi tàngaayu jànt bi balaa mu yegsi ci ñun sinon ñun ñëpp lakk nañ dee parce que àtt nuñu tàngaayu jant bi waaye xool xéewal yooyu yàlla defal nu subhanahu wa taala barke boobu yàlla defal ñu moo tax yàlla te lépp ci xam-xam boobu la ko def moom yàlla moo ko peeg moom tabaraka wa taala ci xam-xamam ak kàttanam fala yaxfa alayhi min amrin amul benn mbir bu nëbbu ci moom lépp laa yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fi sama dara lu nekk ci kaw asamaan lu nëbbu lu yàlla xamul amul dara lu nekk ci suuf lu nëbbu lu yàlla xamul amul dara ku yaakaar ne li nga nekk yàlla xamu ko da ngay nax sa bopp moo tax dafa bokk ci nga am imaan da xam ne foo nekk yàlla xam na li nga nekkee kon da ngay tranquille da ngay posé dal dootoo dugg ci ay lu kenn xamul mbokk yi yàlla lépp la mën yàlla amul lu wala am na lu mënul subhanahu wa lépp la mën tëlewul dara amul lu mu tële lépp mën na lan kàttanam ak xam-xamam ñun nag suñu mën dafa limité suñu gis dafa limité suñu dégg dafa limité suñu wax dafa limité suñu doole dafa limité kan ci ñun moo mën a oto bi sa doole dafa limité mënoo kan ci moo mën a gis li nekk ci ginnaaw miir bi sa gis dafa limité ndax li xew stade bi yéen koy dégg seen dégg dafa limité gis nga ñun doomu aadama suñu lépp dafa limité yàlla nag lépp la mën te lu ko neex def faalun lima yurid te moom lu mu def kenn du ko ne lu def ko te yow loo def ñu wax la suba def laa yusal am maa yafal wa soo defee suñu ñu ne lu tax nga def yàlla bu defee ah, da ngay ñëw fekk sa papa dee nga tiim ko looy wax da nga naan yàlla tax nga rek dana ñëw fekk sa jabar de ñu téléphone la nga ñëw gis ko mu dee xam nga boo ñëwee lay wax alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin waaw ah, da nga naan yàlla ko da nga naan parce que mooy def lu ko neex subhanahu wa bu doon nit moo ko dóor wala nit moo ko rey boo ñëwee looy wax simbeeku jëli jaas ñu lay jàpp wala bu gaa yi téye dañuy téléphoné police mu ñëw pour mu wax ci yow yàlla nag kan mooy dégg papaam de mu dem woo police wala gendarmerie kan lékkati loxo kan mooy ñëw fi fekk soxnaam dee mbaa doomam mu téléphoné di ñëw leen am na lu xew géejawaay villa numéro 11 pare yàlla moo fa rey benn waay boo ko waxee waa ji la lan nga ne yàlla moo fa mu ne lan eh, eh, xoolal bu ñu day daal lay raccroché mbokk yi allah fi la ñu ñëw ba suba jàmm asalaamaaleykum